عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق sunu borom subhanahu wa taala cheikh al islam nag cheikh al islam nag yàlla moo ko booleeg moom de seulement bëgg naa ko. non seulement bëgg na ko. mais moom woon na ma ne bëggal na ma boppam. mais Cheikh al a it woon na Farba Ngom ne bëggal na Farba Ngom boppam. am na yoo xam ne boo ko waxee. am na yoo xam ne boo ko waxee rek. nga doon ci askanu géwél. nga doon ci askanu géwél. dem ñu ñuy teg ci sa kaw. loo xam ne nekku ci. kon nag moom Farba nee na foofu rek lay yem. fi mu ne bu ci a ndaw a rek mooy oto bi am. mooy oto bu mu am. am na photo baay. am na photo baay. fa laay yem fa ma leneen. bu waxee leneen. ma dugg ci beneen kaam ma dugg ci beneen kaam. kon nag képp kuy taalibe baay. kon nag képp kuy taalibe baay. wala di woote ne yow baay la jox. wala di woote ne yow baay moo la jox. ci baay nga bokk. ci baay nga bokk. maa ngi lay mu ngi lay siyaare. porte bi. porte parole bi. Imam Cissé. Imam Cissé. mu ngi nuyu. nuyaale ancien maire. di nuyaale di nuyaale ki fi sant ñi fi sant di nuyaale képp ku fi sant ñas. ak seen i taalibe. ak seen i ak seen i wëllëre. di nuyu. di wala responsabilité wala responsabilité. tôt